marhaban teggi loxo mi ñu daal teggi loxo député yi leen di Déthié Fall Mame Diarra Fam ak maire bu Guédiawaye Ahmed dara moom la mboolem yéen i kay xëyee ni ki tey jilee démb lañu leen doon atte ginnaaw bu ñu leen tegee loxo fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum juin mi ñu ci ab mi ñu tere ci réew mi yéen i kay l'observateur nañu mandataire Yewwi Askan Wi Déthié juróom benn weeru kaso yu mu tëdd lañ daal di gàll ci wuloosam Mame Diarra Fam moom dañ ko rek daal di ba mu daal di ñibbi ci këram di maanaam ab relax mu ànd ci ak yeneen juróom-ñett fukk ak ñaar ci ñu ñu tegoon loxo fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum juin li ñeel Ahmed Aidara maire bu Guédiawaay yéen kaa groupe Futurs Médias mu ngi xam le nii attekat ba daal dina koy teggil ñeenti ci infraction benn képp la ñu mujj gàll ci wuloosam di maanaam bokk ci ab attroupement bi nga xamante ne amut genn ngàndaay loolee waral moom itam ñu daal di gàll ci wuloosam benn weeru kaso bi mu dul tëdd di maanaam un mois de prison avec sursis waaye atte bu nu mel nag Walfadjri Quotidien mu ngi xam le nii ay yoon waral ñuy le nii des defub ci boobu la condamnation yéenekaay Walfadjri dikkaat ak ñun ci kaddu yu dee ci fal Yewwi Askan Wi daal di ci kanamu attekat ya li mu moo dine bi la manifesté bi ñu daal di organiser seen ak ak ndaxte chartum réew di constitution bi moo leen ko suñu naataango yi def fu ci taxawaayu président Macky Sall ak bi mi mu jàpp ne tey jilee ay opposant yu bëri bu ñu ay leader tey am doole lépp ci doxalinam la yéenekaay Le Quotidien lenn mayu leen ko lu dul ay nit ñuy jiite ñu xamatu fu ñuy teg seen ay tànk yéeni kaay la soleil itam mu ngi xam le ni Déthié Fall juróom benn weeru kaso yu mu dul tëdd la ñu daal di gàllo ciw loosam ak alamaan bu toll si ñaari fukki junni bu mu nar a fay député Mame Diarra Fam ak ñeneen ñu jàppoon fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum juin ñoom amut genn daan mi ñu daal di yëkkati gàllu ko ci seen loosa maître Bamba Cissé kenn ci avocat mi la yool Ahmed Aydara maire bu Guédiawaye mu ngi xamle ci biir yéeni kaay tribune ab manifestation amutoon ci bés boobee di fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum juin waral fas yéene nañu def bu appel ngir am ab libération définitive ci jojule jamono yéenekaay bés bi le jour mu ni Guy Marius Sagna mi teg loxo fale ci Ziguinchor ci bokk ci ab manifestation mi ñu tere moom itam niki tey jile ci talaata ji lañ ko fas yéene atte ji ci biir yéenekaay Vox Populi député bile di Moustapha Guirassy moo fay naqarlu ni ñuy tegee loxo ay nattangom opposant loolee waral nag mu jàppale image bu ni mel baaxut ñu ngi taxaw yéen kaay tee moo quotidien mi xam le nii bii le procès bi ñu doon amal jëmale ko nag ci ay détenus politique lenn rek lañ ci jublu woon moo di néewal leen doole rax si dolli itam toroxal leen jàngeen jëf